aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah ñoo ngi nuyu fi teew ñëpp di leen ziyaar di leen baalu àq di leen balaax ah di gën a sant yàlla ci teewaay yàlla yàlla xeet dolli ah match box bi nag neex na torop ku yi foor waaye contre yi foor ah waaye man de ñaari camp boxe yépp dafa am lu mu leen bëgg a laaj ba xam xam ngeen avion bu ñuy woowee AC130 xam naa doo leen ko miin AC130 bu ñuy wax machine de guerre booboo tax ñuy wax ndax c'est essentiellement un char de combat aérien kon nag est-ce que conscient ngeen ci bombardement bi leen di waaj a dal naxee mbaay naxee mbaay na am na misil bu mu leen di waaj a sànni misil bi moo ngi tudd allazi xalaq waaye kooku dinañ ci ñëw xam nga dafa am foo xam ni li débat bi di am am am am solo dafa mel ni ñëpp ci lañ daanu te mooy dañu xalaat ni problème mu chantier la problème mu entreprise la yàlla ba muy def choix am tànnul employé héritier la tànn héritier ba muy tànn nit li tax tànn ko ci historique c'est parce que am xam na ni historique bu vierge la intérêt du ko coloré xëy na bu fa compétence bi nekkul ça veut dire que keneen du làqatu ci am da ko moom ku dul moom moo tax mu sañee def ci moom li mu def ci moom investir ci moom li def li mu investir ci parce que xam na ni foofu la gën a am chance am retour sur investissement kon nag boo ko xoolee ci entreprise xool ko ci chantier rek da ngay daanu parce que seetu fa ku ko liggéeyal est-ce que yéen a ngi comprendre fi ma jëm ma ngoog gis nga loolu tax mbokk bi li mu wax sànq gis nga yàlla amul potentiel illimité yàlla potentiel réalisé la am yàlla amul potentiel illimité potentiel réalisé la am dafa mat ba pare li potentiel bi di yaatu yaatu li muy illimité illimité moom bosom dafa mat ba pare mais comme l'homme a été créé à son image moo tax bu nit dafay illimité waaye du mës a mat xaw ba xam yéen a ngi yéen ngi gis sew-sew bi moo tax nit fekk moo ngi ci sonn ci di topp potentialité boobu potentiel bi di ko yokk di ko yokk di ko yokk dina gën a jege boroomam waaye du mës a àgg parce que ak lu mënti xew roy du niroog piir du niroog piir te loolu nag la ko yàlla di doyee parce que ak lu mënti xew looloo gën a mën a jege yàlla ci boppam en fin de compte mais am beneen piège nag bu nekkaat ci biir ndax potentialité bi ñu tudd mooy facteur limitant bi vulnérabilité bi ñuy tudd mais mooy moteur d'évolution bi xool ko ci xale xale boo xam ne bis bu nekk lim lay wax mooy bu ëllëgee mën naa nekki nàngam bu ëllëgee mën naa nekki nàngam di ko wax chaque jour chaque jour boo xoolee boo xool du mujj fen waaye xale bi nga xam ne mooy concentré ci tey lan la sama performance manqué tey lan laa matalul nan laa fexe ba tey bu ma xëyee ëllëg gën a aay ki ma nekkoon tey kooku xool ko ëllëg mooy rew ñëpp gis nag problème bi foofu la nit ki fekk mooy xool potentiel bi na ah pourtant mën naa nekk nangam est-ce que dana def yitte ba tax mu doone nangam mais gis nga ki concentré ci yitte beeg jom ji def ko parce que action loo ci mënti dégg mooy mës raw imagination li nga imaginer d'accord am na solo waaye li nga réaliser nag moo tax potentiel bi foofu facteur limitant lay doon vulnérabilité bi nekk moteur d'évolution bi li tax nag ma ne misilu allazi xalaq mooy ñëw di dal si parce que lan mooy allazi xalaq yàlla sàkk d'accord mais yàlla sàkk gi mooy dàq plainte yi nga doon am sànq parce que li nga li nga ko approché sànq mooy employé fi nekk mais boo xoolee ni héritier la mais données yi day changé lan moo tax yàlla sàkk kon boo nekkee ci li neex yàlla nekk ci li ko soxal nekk ci li ko gënal ci sa progression mu sàkkal li lay yombal sa avancement weesuwul lii misil baa ngi noonu moo tax nag marchand de foire ceeb dog keneen a ci yam keneen a ci yem alladi xalaq lu coow li di bëri bëri alladi xalaq moo ngi noonu <laughs> ah lan laa fàtte li wax sànq fi bëri bi <laughs> kon moo ngoog kon moo ah xanaa kon question yi yi ngeen ma dencal boobu waaye xam naa léegi ma commencé ñaxtu ma ne tam <laughs> euh, maam as dañuy commencé ci naziru dafa laaj vulnérabilité yi nan lañ koy déggee ci euh, configuration bi nga xam ni Dieu créateur euh, homme créature ci sensu verticalité naka la ñuy déggee vulnérabilité naka la déggee la vulnérabilité ci yàlla mi bind ak jaam bi koy jàmmu ci dimension verticalité loolu la laaj ah mat ak matadi yàlla bi mat jàmm bi matadi mën nañ ko jàppee vulnérabilité mais boo ko jàppee noonu ba mu jeex rek jàdd parce que ni ma ko waxee sànq vulnérabilité bi mooy moteur d'évolution bi mais matu yàlla moo koy permettre mooy mu comprendre la sa matadi bien vrai que foofu di nga xaw a dugg ci genre dimension diagonale parce que dina xaw a dugg ci horizontalité bi mais boo bëggee dégg vulnérabilité bi dëgg mu ngi dugg ci jaam ji nga xam ne au lieu mu concentré ne ci moom matul kon am na lu mu war a mottali moo ngi concentré ci man war naa doone nangam war naa doone nangam danaa dinaa liggéey yàlla nangam mais doonagu ko ce qui fait que problème bi foofu mooy éclipse dafay am entre yéene gi mu yéene liggéeyal boroomam ak fi mu teg boppam dootul gisati ni àggugul maanaam yéeneem en quelque sorte moo koy mujj doy te yéene kese tabaxul dara moo tax vulnérabilité bi foofu nga koy duggee ci foofu nga koy déggee ci cadre vertical te mooy nit du concentré rek ci euh, potentiel bi foofu foofu vulnérabilité bi ci potentiel bi lay dugg mais bu bàyyee xel ni li muy li muy xalaate potentiel bi noonu la war a concentrer ci vulnérabilité bi vulnérabilité bi daaw beneen question bi maam as posé mu ni ndax euh, innahu kaana zaluman jahulan bi yàlla wax ci bi mu ne inna arabna al amaanata dénk naa nit euh, proposé naa sama projet mu ne ndax ndax dafay dugg ci cadre potentialité wala dafay dugg ci cadre vulnérabilité est-ce que projet la parce que le problème mooy angle bi ñu koy approché dafay changer lu bëri bu ñu ko xasee ba jàpp ni projet la rek dafay matadi te yàlla lu def lu matadi mm-hmm. mën na def loo xam ni ci biir progression wu nit ki lay soog a gis mat matu yàlla di teg mais moo mooy mooy dellu ci perception bi ñu tudd sànq xam nga bu ñu nee perception ne acceptance mbokk bi ne sànq acceptance yi jiitu je ne suis pas d'accord lan moo tax bu fekkee xamoo lan ngay accepté est-ce que acceptance ou est-ce que ngëlëmte la moo tax est-ce que perception mooy jiitu est-ce que acceptance mooy jiitu wala est-ce que dénk sa bopp yàllaay jiitu moo ngi noonu moo tax même bu fekkee jàpp nañ ni projet la ah maîtriser au projet bi nga toog borom projet bi naa mu gën a dafa laaj ndax vulnérabilité faiblesse la. Ah, mooy comme li Mohamed indi sànq vulnérabilité ak ki vulnérable. ñaar yi bokkuñu nit mën na vulnérable te du nekk ci position de vulnérabilité nit mën na nekk ci position de vulnérabilité te du vulnérable mais ba léegi li lii réellement danger bi nekkul ci vulnérabilité bi en tant que tel mais wóolu potentiel gi la wóolu potentiel gi la bien vrai que boo ko observé ba ci biir appesantir ci vulnérabilité bu mu ëpp tamit dina la tardeel ce qui fait que kon en fin de compte c'est une question d'équilibre c'est une question d'équilibre mais faiblesse nag léegi si autre chose complètement faiblesse man ci ni ma ko déggee mooy la faiblesse mooy bëgg gëm ni am nga jom ji am nga yitte gi te façon yéene jëf jom ji wala jëf yitte gi ma jàpp naa ne loolooy faiblesse xëy na sax ci exemple bu reelu xam naa man moom dañ fa yore genre camp militaire <laughs> maa ngi waa printemps arabe bi ndax xam nga ñun moom ay ndongo daal lañ koor lañ gën a sawara a sport démb nag ñu nekkoon ci euh, ñu nekkoon ci nekkoon ci suñu mbokk cheikh dab dab siñu ndeysaan nag mag Mouhamed ñu def ko yëfi saay-saay charge bi ñu ko yëkkatiloo ak ba mu waroon yëkkati daa bokkul waaye ma ne ma gis ni mu ngi koy yëkkati ak jom ma ne naa ko bàyyi ci biir bàyyi ko ci bàyyi ko ci ba quatrième série wala def huit répétition defal ma cinq mu ne ma ñetti est du ma ko leb ma ne ko leb mu ne ko fii amul leb de fii du banque mu ne ko matalal sa sa sa trois yi des mu ne non bàyyil ma leb ko rek muy expliquer di expliquer ma ne ko Cheikh léegi yow damaa comprendre maanaam fi mu toll li nga def mooy dangaa ñëw fekk ma sama saal ci sama programme ma ne la defal nangam. nga ma ci tegal baat mu xool bu mu ne wax nga dëgg waaye ndeysaan bu ma gisee mu jëlaat baar bi yëkkati ko ñett yu set wecc mbégte di ma xamul nu mu toll moo tax dama ci dama ko ci tegal baat mu ne ko gis nga nag àdduna mu ne ko doxee jom lii moo tax mu neex mën ne ko parce que ci biir boo yaakaaree mu neex rek tey nga de mais gis nga fekk yaa ngi bàyyiloo xel li la tàmbaliloo di nga àggale waaye gis nga buy àgg nag di neex ma ngoog jom ak yitte loolu la <laughs> macha allah ah, dañuy jeexale ci ñaari question caam yi bu njëkk bi mu nu yitte ak jom ndax choix la <laughs> ah bien sûr choix la c'est comme ni koy waxtaanee sànq xam nga am na mbokk bu koy indi sànq ci exemple ci kaasu meew bi mais dégg la laaj te day delluwaat ba léegi ci àll si xalaq bi ndax kaasu meew bi bu ñuy jàppee ni bu jeexoon ñëppay nangu dañ duñu dégg parce que li tax kaas bi xaaj c'est parce que am na ñoo xam ne il faut ñu nangu c'est impératif ci seen wàll ndax li war a liggéeyal yàlla mais am na ñoo xam ne il faut ñu nangoo bañ ndax ñoom it loolu lañ yàlla doy alladi xalaq loolu la yàlla sàkk ci ñoom mënuñ ko rëcc parce que bu dul loolu li ñu war a jëriñ yàlla mënuñu ko kon nag nangu gi am na ba pare muy fii moo tax alastu bi rabbikum balaa ji xëy na am na waaye ay xeetu balaa la ay xeetu balaa la am na balaa yoo xam ne dëggu na ci ki ko wax am na balaa yoo xam ne dëgguwul ci ki ko wax mais loolu yëpp dafay def différence entre ñi nga xam ni nangu nañ ak ñi nga xam ni dañoo war a nangu nangu ak ñi nga xam ne dañoo war a nangoo bay parce que ñoom seen njëriñ ci loolu la nekk parce que bu fekkoon nanguwuluñ yàlla foofu ci boppam lañ dul nekk ndax place ba xat na place ba xat na ba pare bokkul ak ñeg ak ay naam yeeg noppi yeeg ya ca des ndax yooyu yëpp ay cas spécial la yooyu yëpp ay cas spécial moo tax en fin de compte en effet nit ki mooy na am jomam mooy tànn am yitteem parce que nag potentiel bi nekk fi vulnérabilité yi nekk fi ah taxul nga jóg def dara li may seetaan benn waaye di ko expliquer démb mu ne koo gis ak lu mu tayal tayal tayal ak lu mu ñàkk-ñàkk yitte ci boppam fu mu mënti toll ci àddunaam personne potentiel am ki mu mën a doon son personne son potentiel réalisé moo koy woo bis bu nekk ni ko diw tee ngaa jóg sa caaxaan yi doy na tee ngaa jóg waaye mais ñu wóor a taxul nga wuyu moo tax ak lu mën ci xew c'est un mais choix boo gis am conséquence ndax boo tànnee jom ak yitte choix la boo tànnee toog ak tayal choix la bu ci nekk nag ak la ci si fekk question bu mujj bi mooy kun fayakun boobu mu wax li dox ci diggante bi bi qudratihi bi iradatihi ak yi ci topp dama joxoon exemple ñoom imam sàmba si yi ñuy bind ci xaatim yeeg yooyu mu ne naka lay demee kun te ma laa bàyyi nga tontu ko yaa ko yaa ko posé góor gi waaw xam nga yooyu yoonu daara la yooyu yoonu daara la waaye li muy nekk nekk yoonu daara am na yeneen yoon yu làqu ci biir ndax kun fa yakun ñaari kun yi am na noo koy travaillé doo soxla bind loolu yëpp waaw wala déet ah mbir boobu nag daa am borom comme <laughs> daa am borom moom lu ñu ci ñemee xuus ba mu jeex ah, xëy na sax am na lu ñu ci jot a sob waaye nongo nongo lay doon sëriñ di sëriñ kon nag ah ñu bàyyi sëriñ bi wàllam ñu nangoo nekk nongo rek incha allah <laughs> ah, kon mat na ah kon sant yàlla sant yàlla ah xam naa misil bi daal na waaye ñëpp ci bëgg <laughs> ndax yàlla moom du lore day defar rek yàlla ko yàlla ñu ko yokk yàlla yàlla gën a barkeel gën a wéral xool yéeg cër yeeg yëpp ci mbaaxam ak ci barke mag ñu ñu yaakaar ah kon ñu ñaanalante ñu defaat fatiha ñetti xuraysh falaxeeg naa salaatul fatiha ñaanalante ba beneen yoon allah bismillah jërë ngeen jëf leur sagesse, leur dévotion ou leur sainteté mais également le esprit de partage. Cette jeunesse ne pouvait pas espérer mieux que leur capitaine Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy sur le front qu'il dirige. Il n'y a pas meilleur profil que le sien. Il est l'officier qui commande le navire et la destination et certaine. Le capitaine dirige une unité d'élite rompue à la tâche pendant tout le mois béni du Ramadan qui va la ville de Seydi Haji Malick sera honorée par un programme riche en enseignement. Pape Lay Diouf gis nga tey programme bi nga xamante ne moom lañ am ci biir salle bi maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine doon ko comme d'habitude ni nga xamante ne noonu lañ indee tey thème tey bi dellu ci entre potentialité et vulnérabilité les enjeux de la mise à niveau. salaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Mourchid TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ak éveil